ay ca mu ngoog ñu ngi ci euh, pàcc bu mujj ci seen matinal info Allô Sénégal jaajëfal euh, sunu invité yi nga xamante ni ñoom ñoo fi jóge léegi 9 heures passées de 30 minutes la destination c'est à 10 bu fukki waxtu jotee mbokk yi ñu daal di leen di jox. le flash d'information ma dalal euh, borom secret yi dabi léegi nag chaque mercredi la ñuy ànd ak moom ci li nga xamante ni moo di matinal bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar bàyyi la nga ñëw ak mbokk yi. waaw illallah wa ma tawfiqa illa billah la ilma xalamtana innaka anta alxalimul hakim ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ngi leen di nuyu di nuyu soxna Aïcha fay naa la ak uh, mbooleem ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi uh, di siyaare waa réew mi ak waa bitim réew di jiital ci siyaar bi nag Cheikh Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké ak boo xalifa généraux yëpp di jaale ahlu lislaam di dal ci seen kaw muy xalifa généraux kunte yi ñu ngi koy jaale réew mi yëpp ndax tiis dafa dalaat ci kaw lislaam di ñaan sunu boroom ah, taas ko ci yërmandeem te doole ko ay leer di massawu Sénégal yëpp di siyaare mbooleem waa waa plateau bi rek. dalal ak dalal ak jàmm am nañu mbégte nga retrouver ñu ci matinal bi ñu dalal Keyna aussi mu ngi ci plateau bi Keyna maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay madame Camara. noo def maa ngi si jàmm bu baax alhamdulilah. bien ñu bàyyi la nga nuyu mbokk yi. merci beaucoup c'est toujours un plaisir euh, di nuyu euh, borom secret yi mais aussi di nuyu euh, ñi nga xam. fekk ci plateau bi di leen jaajëfal bu baax a baax di am plaisir ak contentement di jàkkaarloo di yéen chaque matin comme tous les jours rek damay daal di indi samay astuce tay donc euh, voilà tay noonu góorgóorlu moo waroon ñëw mais damay damay daal di indi astuce bi nga xam ne euh, ma ko laaj léegi léegi rek dinaa si ñëw Aïcha euh, dalal ak jàmm Keyna jeune reporter Euh, jeune réalisateur tamit am na tey le plus jeune réalisateur du Sénégal mooy réalisé matinal bi muy mu <laughs> Mouhamed <laughs> ñu ngi lay def coucou euh, matinal ànd ak wëz ci li nga xamante ni moo di régie bi alors borom secret yi tey yan secret nga ñuy jox hmm? waaw soxna Aïssa xam nga réew mi fi mu toll nii danoo soxla kaaraange ndax euh, ñu bari jaax nan ngir jafe-jafe yi am ci réew mi te dara warulu ko rek lu dul àdduna xëccoo àdduna maa ngi koy wax démb ak kilifa gu mag naan ko du ñëpp kilifa nag mais bari na kilifa yoo xamante ne fi réew mi toll dana mujj sax am kersa ñaan yàlla jóge fi ndax ñoom nitu yàlla teg àdduna maanaam da da am solo ci moom bu gisee nit ñi amal ko solo nag di ci xeex di ci xuloo di ci waxante lu ñaaw euh, moom day dañ ci am kersa daal. Mm. ndax dañuy am yërmaande ci nit ñi ndax dañuy xam ne li ñu jublu daanaka. bu nu xamoon dëgg-dëgg àdduna du leen jaral lépp kon comme réew mi ñàkk na kaaraange euh, may wax nit ñi fii réew mi tool soxna Aïssa hmm. maanaam ñaan dong mën a régler situation yi. ñaan rek. waaw maa maa ngi siyaar nag Papis dama ko xel day fat di programme bi maa ngi koy siyaar baax di ko jox wàcc waayam sama xarit euh, waaye ñaan daal. Hmm. moo mën a génne nit ñi ci situation yi mu nekk. ndax ñaan gis nga yonent yàlla Ibrahima ba mu nekkee ci sawaraam soos ba nga ko dugalee ci sawara sa sun borom dafa wax ne xul naa yaa naar ko ni bardan wa maanaam sawaraam soosu ay ñaane ko ci génne mu sedd guy ci moom gis ba mu mënee jële nit sawara yu aljana boobu la tëlewul dara loolu waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nit ñi nañuy fonk ay ñaan ci seenu njaboot ci seen jëmm ci seen bërëb yi ñuy liggéeye ci seeni kër muy kaaraay ndax léeg nga gis koo xamante ne danaan yàlla xam na sa soxla kon jarul may ñaan am na ñoo xam ne loolu la ñuy wax mm. yàlla xam na samay soxla jarul may ñaan waaw suñu borom dafa bëgg ku koy toroxlu di ko ñaan ndax ki nga xam ne day ñaan yàlla bi ci njëkk mooy moom xam na ne yàlla am na ku gëmul yàlla doo taxaw di ko ñaan beneen bi ci kenn mënu ko yàlla rek ko man beneen bi ci topp mooy xam na ni fi mu fu mu mën a toll moom moo eggul ci yàlla waaye yàlla mhm. kon xam na ne kon yàllaa ngi fépp kon ab jullit dëgg dëgg dëgg dëgg mooy gëm ni soxla moom yàlla moo koy saafara ndax eh, yonent yàlla ba mu toogee amul doom mu dem ba ay aasam di kawe lool bay bëgg a weesu fu mu amee doom te am na ay soxna mënta am doom dafa ñaan yàlla doom ni mu ñaane yàlla doom ah, da koo wax ni ko sunu boroom may ma doom ju may wéttal su ma demee ba jóge fii sax donn waaw dafa wax ni rabbi habli mina saalihiin may ma doom ju may doon sunu borom may ko doom ci at mam ko ñaane ba pare daan ni ko ñaan gi ma ko ñaan nag moo tax ma may la ko soo ma ko ñaanutoon du ma la ko may yàlla Zakaria narutoon a am doom moom mu demee bay jëm mag bay weesu âge bi mu war a amee doom ci ñaan yàlla yàlla tamit daal koy xamal ni ñaan gi nga moo tax ma may la ma kon damay joxe nit ñi ñu mis xam ni ñaan nit ki bari na lu muy ñaan am ko. d'accord léegi. ci situation tollu yan ñaan ngay ngay ngay ngay ngay nit yi. waa bi ci njëkk mooy ñaanu gudd fan. ñaanu gudd fan dafa am léeg nga dégg erreur yi am ci nit ñi ñu naan nit ki du weesu bisam bu fekkee nit ki du weesu bisam. soxna yàlla nga fi yàgg te wér ku nu ñaanal ni la yàlla nga fi yàgg te bul bul wax amiin. comme yow bis bi ngay war bis faatu moom ci ngay faatu doo ko romb kon bu kenn ñaanal kenn gis nga ab sarax sax soxna Aysa nit ki yonent bi moo wax ci addis bu wér ni nit am na koo xamante ne ci jamono yonent yàlla Moussa yonent yàlla Moussa ci xew ci xew yi waa ji doon ko sawar yonent yàlla Moussa wax ñi mu toogandool ni leen keede sunu boroom xamal na ma ni tey ci guddi la war a wàcc la war a génn àdduna waaye bu leen ko ko wax ndax yàlla du koo nëbb gaa yi ni ko ah kon de moom faatoom gi nar na koo bett te ab yonent lu mu wax dëgg la ndax suñu borom du koy wax yu gaa yi di xool waa ji waa jaa ngi tëb ak a dal gaa yi di waa ji bi muy dem këram dajeeg ñaari ñuy xiif di yalwaan ni ko danoo bëgg lu reere fekk commandoon na soxnaam laax laaxu sow mu yóbbu ñooñu këram jox leen ca laax ba ñu lekk ba suur naan ca soow man naan ndox ba màndi ñoo ñu ni ko yàlla nga fi yàgg téer nee na malaakal mooti bi waxtu yu jotee mu tàggu yàlla suñu borom ni ko bàyyiwaat ko fi ñee mu ñee jox ñu lekk ba suur naan ba màndi tey laa la waxoon fanaab yam waaye sarax bii mu sarax na fi dundal juróom fukki at sarax bee fomm mu deewee moo fomm mu deewee mën naa xëy ñu ni bu demee bu demee ci oto bi buy xëy buy dem ci oto bi oto bi mën na koo mbëkk wala jéyee mën na koo dal mu xëy saraxe mu fanqal ko loolu yaa ngi dégg kon li ma bëgg a wax loolu lépp damay misaal bala maa joxe ci ñaan ñu xam ni nit ki mën naa ñaan ñaanu gudd fan nit ki mënoon naa gàtt fan ñaan suñu borom ñaan gu tax mu gudd fan nit ki mënoon naa ñàkk suñu borom ko ci at aji ñàkk yi mu ñaan ñaan tax suñu borom boole ko ci aji xéewal yi nit ki mënoon naa doon aji texee di ñaan ba suñu borom defal ko mu doon aji texe léegi nag euh, lii dama bëgg ñu déglu ko bu baax. ñu ngi koy déglu. nit fay na milliard ngir bëgg gudd fan te bu defoon lii sunu borom dana ko guddal fan nit fay na ay milliard lu ne mu fa France ak fu euh, te bu defoon lii sunu borom mën naa guddal aw fanam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax te alxuraan moo ne wa maa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa ci sóortu nañ mi suñu borom ne yonent bi lu mu wax rek dëgg la te daan na ñaan daan na ñaan lu ñu ñëw ci ñaan bi waxtu waa ngi dafa wax ni hmm. képp koo xam ne da bëgg gudd fan ba pare bëgg a mucc xam nga nit ki mën naa gudd fan te du mucc nit ki mën naa mucc te du nit ki mën naa mucc gudd fan ba pare maanaam gudd fan koo xamante ne day ànd ak fan wu gàtt ay tolof tolof nit ki tamit mën naa am fan woo xamante ne da ci am jàmm dund ci dund gu neex waaye day gàtt léegi nag lii may wax moom ku ko def di nga gudd fan di nga mucc waaw faatihatul kitaab muy alhamdulillahi rabbil alamin moom ngay fexe ñu bindal la ko juróom-ñaari yoon mooy sept fois ayatul kursiyu nga bind ko sept fois alam nasara nga bind ko sept fois wa tiini wa waaw nga bind ko sept fois ina anzalnaahu fii laylatil xadri nga bind ko isa zulzilati nga bind ko set fois fi xoroy si ñu bindal la ko set fois falaxi ñu bindal la ko sept fois naasi mhm. ñu bindal la ko set fois nga daan koy def saafara def ko ci lekk mm. guddik alxamis nga fanaanal ko ci asa nga fanaanal ko foo xam ne ci leget gi saafara si asamaan see koy tiim boo xëyee ajuma wax na ni boo ko defee boo ko defee képp ku ko deful comme ni nga ko defee yaa ko fi mujj ginnaaw. Pape. vous avez une question. question. ah ngeen concentré euh, comme de vrais téléspectateurs mais mais jàngat moom. xam nga ah, enseignement mais lu ma jaaxal moom mooy bii baax damaa bëggoon poser question nga bañ ma jox te tey nga jox naa la. <laughs> mais lu tax loolu. <laughs> non vas <laughs> bon mais mais euh, sëñ bi lu nga wax lépp ku ko def après yow doo dee quoi. non doo xam ne doo dee de. sa sa dee dañuy dañ koy retardé. feebaru dee moom amul xam nga lan mooy feebaru dee bañ a judd. ok mais li nga wax ni ku ko def ça veut dire que. saafara dee daal mooy bañ a judd mais li nga wax ni ku ko def. sa dee day retardé wu. ku ko def yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sunu borom dina la fi bàyyi ba mu soob la. ku ko deful. Ah, ku ko deful nag mën ngaa dund ci ci war a dem dem rek. ah bon waaw waaye am na ñaan goo xam ne day yokk fan. gis nga na anzalnahu fii laylatul qadr rek boo dee jàkkaarloog jant bi def ko ñetti fan bis bu ne nga bàyyi ba jant bi yoor yoor waxtu wi hmm. nga jàkkaarloog jant bi bañ a xef jàng ko ba mu jeex nga tifli ci sa kanam ba bu ñetti fois boroom xam-xam yi maasi nañ ci téer ci ci ci ci ci kii boobu waaw ci secret boobu nii lay dana dana fi tax léegi boo amee dix-huit ans hmm. pendant pendant un temps nga koy def tous les jours da ngay dund cent dix-huit ans kon man ngaa am lu loolu yàlla kat du jeexal dara te dañuy faatu boobu ba léegi ji ngi xaar. alors ñu bàyyi la si ñaari simili nga tëj ñaan bi ko defee ñu jàll ci. beneen euh, bi ci topp muy wàllu kaaraange kaaraange dafa am solo euh, surtout bàqara. suratul baqara waaw muy saar wi gën a guddi ci alxuraan ci la mhm. ayatul kursi yu nekk mhm. yonente bi sallallahu alayhi wa dafa am benn bis booba ci saaba yi mu ne ku ko mokkal na jiite julli booba ñu bari mokkaluñ ko ndax boobu alxuraan bi mu wàccee benn xale moo ñëw ni mokkal naa ko yonent bi jiitaloo maanaam ku ko mokkal di nga doon sang ci sag maas ndax moo tax xale boobu li mu doon doon xale yonent bi jiital ko ci julli gi boo ko jàngee ci kër tifli ko ci mu ndox boole ko juróom ñaari guro nga sangoo ko di nga mucc ci loru doomu aadama yépp ay rëy rëy na nga xam ni taxoo koo jóg sunu borom mi musale dina la ci musal da nga mucc ci rab mucc ci jinne mucc ci saytaane mucc ci ay cat ak yëpp am nga kaaraange gu wér mu koy maa ngi koy jox ñëpp jërëjëf te ci koy jàngi na ko jàng-njàng mu leer set wecc mu set wecc ah, macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax waxtaan wi am na solo ah, mbokk yi wax leen yéen ñi nga xamante ni am na lenn rek lu leen rëcc ah, ci waxtaan wi mën ngeen dem ci li nga xamante ni moo di site bi SN euh, ngeen replay wala ngeen dugg sur la page Facebook de la 7TV euh, di ngeen fa fekk cette euh, partie de la région ñu di ànd ak borom secret yi alors ñu ngi ci juste minute yu mujj yi dañuy ànd ak Keyna léegi-léegi bu bàkk bi noppee ñu dikkaat ci plateau bi